lenn ñorul dul Sëriñ Tuubaa rek lan ñu ñoroon lu sëñ Tuubaa ak ak ak njabootam gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Serigne Sidi Makhtar Mbacké xalif general des Mourides wuy ji boromam mardi bi ay 22 h jotee ndax chiffre 7 wuyu na ko mooy septième fils de Serigne Bara 7e xalif de Cheikh Ahmadou Bamba 7 ans 7 mois mu nek ko ci khilafa bi tabax 7e soror bu jumaay Touba mo ngi gane ci adina en 1924 ci Mbacké kadior nek xalifu Touba ci atum 2010 bi Serigne Bara Mbacke wuy ji boroomam denc nañu ko Barqiya tey ci 5 heures ci fajar yàlla na ko yàlla xare àjjana te taas ñu ci barkeem ki ko nara a di di Serigne Mountakha basiiru Mbacke doom ci Serigne basiiru Mbacke fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke.